ça va papa mbokk yi ñu ngi seetlu di gis nga noonu ñu ngi nuyoo déggal maire yi maire yi nee nañ ko daan kontaan nañ ci miis yàpp yu bare na xar yi bare na lépp bare na kontaan nañ ci ba ànd ak yar na ak teggin waaw lekk leen naan leen rek ci ma njëkk leen ba sama ñoom yaay rek lay wax waaw lépp bare na. kontaan na nekk nañu suñu noonu nga ko. naree sa jàmm yéen a ko moom. amiin amiin yàlla def barke njaboot amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin waaye jàmbur la. Miss Kata Miss. Miss Obu. waaw Thank you. Malaquia Civil 09.

yëpp Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér